di kenn ku nekk sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Ndiaga Fall di président APMK Kayar bi euh, yëkkati sunu kàddu mais muy kàddu njàqare mais muy kaddu jaaxle ndax li nga xam ne tey moom la ñu waxante woon ak état bi wala ndawe état bi moo doon bu fekkente ni ñun bay na nañu ba ñoral dañuy toog def table ronde waxtaan ci li nga xam ne mooy production bi. mais li ñu waxtaanee woon ak euh, état bi ñi nga xam ne ñoo ko fi toogal muy ARM moo doon bu ñu toogee ba mu ba ba pombiteer bi ñor mois de février ñu bàyyi indien bi mu jaay ba mois de février jeex mais indien bi jaay na ba mois de février jeex léegi nee na dafa am service boo xam ne da ko war a continuer di ko dugal ci marché bi te ñun ñoo war a tàmbali euh, début mars continuer 3 euh, mois 4 mois bu nu jeexalee moom mu war a mu mu continuer mais tey. sor moom li nga xam ne tey moo doon bénéfice am jaay na ko ci un mois yi ba mu jeex tey li nga xam ne moom la mooy exemple fota tam yi nga xam ne tey sarse na ko parce que ay cent mille tonnes yoo xam ne stocké na ko yoo xam ne tey loolu ci bénéfice am la bokk tey mu ne dese na lu mat dix mille tonnes yoo xam ni da ko war a génne ci marché bi continuer concurrencer ko producteurs yu ndaw yi mais loolu mooy naa rey producteurs yu ndaw yi continuer tey ñu bàyyi mbay ma ñëw jël leen ay moo tax tey ñu génn wane sunu bopp ni ñun ci réew mi lañu bokk kon nit war la jógee cim réewam ñëw bëgg noo éliminer. ñoom de mais tey ku dem ci àll bi gis nga ni ñoom directeur agriculture ma kumba gis nga ko ànd na moom ci terrain bi directeur ARM ànd na moom ci terrain bi même euh, ministre de agriculture ñëw na ci terrain bi gis nañ ne kayaar seen Sambour Faat mooy ñax mi ñuy jël teg pomme de terre bi ginnaaw bi jël. jal ko ci 30 tonnes 100 tonnes nga jël ko jal ci am ñax mais loolu mën nañu xëy taal ko kon Indien bi nga xam ne tey am na capacité denc lu ëpp 100 000 tonnes ñu may ko un mois mu jaay ba date bi ñu waxante woon jeexal dafa war a arrêté ñun ñu continuer ba xere date bi ñu waxante woon jeex bu waree continuer mu continuer parce que Sénégal yi nga xam ne tey ñu ngi xombal yor hectares yi nga xam ne jege na la Indien bi yor. ñi nga xam ne tey ñu ngi euh, euh, Saint-Louis ñooñu arrêté nañu te ñooñu ay sénégalais lañu pourquoi ki nga xam ne tey étranger la ñëw ñëw bëgg noo étuve ba tey ñun li ñuy liggéey ñu dellu ci ginnaaw mais loolu moo tax tey ñu génn pour wane suñu bopp pour wax ñu interpeller président directement interpeller ministre bi directement parce que ñun dañoo yàq ne yëguñu léegi loolu mooy sunu kàddu parce que président moo nu woo ci bay dunde ñu def ci boo xam ni kenn ku ne te ngi sa pour cent mu ngi jóge ci commune Kayar ci ci production euh, filière pomme de terre kon 30 pour cent fu muy jógee ah, kon commune li wër li wër zone de Niayes kon man naa ne ñu ngi ci 60 pour cent ci production bi kon daf état danoo war a protéger parce que milliards yu mu jël def ko ci ci ci ci ci subvention bi béykat yi jël nañu milliards yu nu toll complété ko tey béykat yi mais banques yi ñoo leen di financé mais béykat bu jaay production ba nga xam ne tey moom la produire mais fu mu jëm ñu topp kay bor njabootam di souffrir mais ñu ni état nanu dimbali ci ñaxta ñaxtawuñu mais dañuy wax li am kon lii mooy li am ñu tey moo tax ñu woote pour wane suñu ni lii moo nu naqari tey gëm na ni bu ko président yëgee wala ministre agriculture yëg ko ragal nañ dina fay. tey ñu ngi séntu soixante quatre-vingt mille tonnes ba soixante-dix mille tonnes ba quatre-vingt mille tonnes waaw kon actuellement ñun li nu war def nañ ko kon li des mooy sunu état def li ko war. loolu mooy sunu kàddu. man la Maada Ndong dëkk kayaar bokk ci jigéen ñi yëngu ci mbay mi. ci kaw ñun li ñu jaaxal dañoo gis lu ñu mus a gis ndax état jàpp na ci kayaar bu baax a baax a baax ndax subventionné nañu noonu de terre bi ba ñu mañ kaa bay fi mu ne ñëpp ñu ngi bay lu ci mbay mi li ñu naqari mooy indien bi na arrêté pomme bi parce que fi ne jigéen ju ne yaa ngi ñaari tool yor sa ñaari doomi jigéen góor ak sa doomi jigéen bu nu jàngiwul ak ñi nga xam jàng nañ ba jeexal ñi ngi jëm ci tool yi. léegi bu ñu jaayul pomme bi xale yi fu ñu jëm xanaa ci géej gi dem kalandise te bëgguñu suñuy doom dem kalandise ndax bu ñu sañoon dañuy toog ci géej gi ci dëkk bi di liggéey ñu nag suñu njaboot bu ñu xëyee yeewoon ak ñoom waaye ku jaayul sàkk pexe nan nu dimbali mbaa ñu xale yi dem ci géej gi te bëgguñu ñu dem ci géej gi ndax boo xëyee yeewoo ak sa njaboot rek toog ngeen xëy ndékki rek neex na laneen loo am bénéfice la nañ ñu dimbali di laay wala sooli Macky Sall li mu nu mënal defal nañu ko jàppale nañu ci mbay bu baax ay ata ngi amuñu problème li ñu naqari mooy indien bi nañu ci dimbali arrêté ko nu mu gën a gaaw balaa xale yee dellu ci géej gi wasalaam. waaw ah, ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan jàmm ci kayaar ak département de Thiès région de Thiès Sénégal gépp ñu ngi ñaan yàlla def fi jàmm tey nag su ngeen gisee ñu taxaw fii di wax dafa am lu xew loo xam ni dafa jar a wax te lu jar a wax da nga koy waxee fa nga xam ni fa la jar a waxe euh, baykat yi li ñuy wax déglu naa ko dégg naa ko. li ñu wax it rafetlu nañu ko bu wér wér wér am nañ ci te lool ndax nit ku nekk la muy dund moo ko xam kon ñoom li ñu fi wax bu ñu ko seetloo analyser ko lu ñu dund la wax nañu li leen président di defal taxawaay bi wax nañu aussi da nga xam ni fi la président jëm ak ñoom mu nekk loo xam ne njariñu askan wi la waaye nag su fekkente ni loolu pour mu mën a am dafay fekk ñoom produit bi nga xam ni moom la ñu produire ñu mën a am fu ñu ko jaayee ñàkk fu ñu ko jaayee mënta weesu. nga bay ba pare am chambre froide boo xamante ni ñax la ci àll bi ku bay ba pare da ngay fanaanaat mën nga fanaan weer ci àll bi doo xam ne doo fa jóge ñu waxaat aussi ni nga ñëw ba ci marché bi teg doo mën a jaay ñoom li leen tee mën a jaay du ma ne li leen tee mën a jaay sax nun li ñu tee mën a jaay parce que producteur la comme ñoom li ñuy wax dama koy dund comme ñoom kon nag su ma nekkee un élu du peuple tey jii ñu taxaw di jàmbat menn mbir te ma gis ni li ñuy jàmbat dëgg la lay sama warugar mooy ma taxaw ci wax ka ba askanu Sénégal gépp xam ne li ñuy wax dëgg la loolu moo waral ñun li ñuy wax mooy que xam nañu kan mooy son excellence le président de la Macky Sall nit su fekkee dafa jóg pour investir defar am réewam jàpp naa ne manquement yi mu nga amee ca ña nga xamante ni ñoom la ñu waroon doxal ñoo ko war a doxal te doxaluñu ko foofu la manquement bi nekk waaye président su fekkente ne yàlla def na def na li mu def ci réew mi ci ndorte bëgg am lu mu defaat defe naa ne du nekk koo xam ne dafay gàllankoor askan wi loolu nekkul ci moom kon nag ñi nga xam ni président daf leen dénk mel ni mbir ñu war kaa doxal nañu koy doxal ni leen ko président dénk bu ko defee président ndamam di gën a yokk nit ñi di ko gën a wóolu nit ñi di gën a ànd ak moom waaye nit bu la doyaloo def la kilifa di lay liggéeyloo te la muy liggéey liggéeyoo ko da nga indi loolu mooy jafe-jafe Sénégal jafe kilifa ga la muy bëgg ak ña muy liggéeyoo la ñuy def du doon benn loolu mooy problème Sénégal ñun nag ñu ngi interpellé le président de la République en tant que élu du peuple mu jàppale waat ñu ci li nga xam ni jàppale nañu si nit boo ko jàppalee mu am jiw nga jàppale ko muy am gasoil nga jàppale ko muy am engrais mu borom def mu nga xam ne nag moo fi ne nag mu fexe ba mu ñor kon la nga ko war a jàppale mu am foo xam ne ne fa lay def am na boo xam ni mu ngi fi ba ñu ko fi war na am nañu place bi pare nañu ñu ngi xaar ki koy liggéey te ba léegi mënagul ñëw loolu aussi dinañ ko dénoncewaale parce loolu ci la bokk kon ñooñu tey la mooy la ma waxoon ca départ ba rek ni ñi ñu war a war a liggéey bu ñu ko liggéey président de fi mu bëgg yegg dana fa yegg léegi xam ne xalaat nañ ko ñun ak ñoom noo ci ànd ci àll bi la nekk ak ñoom di liggéey kon dañoo war taxaw dénoncer indien bi ak ñeneen ñoo xam ne ay chinois lañ parce bu doon ay sénégalais rek ñun daañu xam nañ dañoo war taxaw seen doom ñoo nekk ci àll bi bu ñu demee ba bàyyi gaal yi di géti di bàyyi gaal yi di dem ci àll bi loolu ñooñu dañ leen a war jàppale gën jàppale goo xam ne jàppale bu dëgër la doon parce que loolu mooy waru état bi ñu ngi ñaan nag mu jàppale ndaw ñi balay seenam xel di am ci leneen lu mu dem ñun nag liñ ci man mooy wax ba àddina bépp dégguñu wax nañu ko te jàpp nañ li ñu wax bu ko président déggee dana saafaroo kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala je m'appelle Mbaye Ndoye je suis le représentant des producteurs maraîchers de la zone des Niayes plus particulièrement à Kayar en fait notre rencontre de ce a pour but d'éclairer la lanterne des Sénégalais en général et des autorités en particulier sur la concurrence déloyale constatée dans la commercialisation de la pomme de terre par les Indiens de Mban au détriment des producteurs de la zone des Niayes et particulièrement ceux de Kayar. Il est bon de rappeler également que par le dynamisme des acteurs et la prise d'initiatives locale pour la préservation de la ressource halieutique, Kayar a toujours joué un rôle déterminant dans la pêche artisanale. Malgré cette place importante qu'occupe Caire dans la pêche, nous avons voulu donner corps à la vision du président de la République, son Excellence Sall, contenue dans le PRACAS, le volet agricole du PSE. Pour illustrer cette volonté manifeste d'accompagner le président dans la mise en œuvre du PRACAS, les producteurs de Caire, à titre de la saison 2016-2017, ont réceptionné 30 conteneurs de 25 tonnes l'unité de semences de de terre pour le compte exclusif de la commune de Kayar. Pour la présente campagne, cela veut dire la campagne 2017-2018, Nous avons réceptionné 50 conteneurs de la même dimension en semences de pommes de terre, soit un total de 1250 tonnes de semences. Cela nous amène à espérer une production de 12 500 tonnes de pommes de terre et un chiffre d'affaires de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Si, je dis bien si, nous parvenons à vendre le kilo de pommes de terre à 200 francs CFA. Maintenant, qu'est-ce qui conditionne le prix de vente de la pomme de terre actuellement au Sénégal C'est la réponse à laquelle euh, euh, la réponse à laquelle constitue l'intérêt de la rencontre d'aujourd'hui. En effet, les producteurs horticoles de la zone des Niayes sont victimes de la concurrence déloyale et malsaine des producteurs indiens qui, en plus d'avoir accaparé les terres fertiles de Mban et transformé les populations en une main-d'œuvre corvéable et maniable, se sont emparés du marché local qu'il inonde avec une surproduction de plus de 6 000 tonnes. Sous le regard complice de l'État du Sénégal qui, au lieu de protéger et encourager les initiatives producteurs nationaux, préfère assister les firmes étrangères comme Sen India. Cette dernière dont la mission devrait être de combler le gap de production, si gap il y a, je dis bien, parce que bénéficiant d'un accompagnement de l'État à hauteur de 9 milliards pour la construction de chambres froides d'une capacité de plus de 40 000 tonnes, euh, l'unité se permet de produire à volonté pour faire chuter le prix afin de décourager les producteurs locaux, assurant ainsi, la, assurant ainsi à la longue le monopole de la filière. Au demeurant, nous exigeons de l'État, dont la responsabilité première est de veiller à l'intérêt exclusif de ses concitoyens. De demander à Seine-Indian de retirer immédiatement et sans condition du marché le surplus de production qu'il est en train de bazarder, je dis bien bazarder. Deux, de mettre fin à sa politique protectionniste, au pro, euh, euh, euh à sa politique protectionniste à l'égard des producteurs euh, étrangers au détriment des vins producteurs sénégalais. Je vous remercie de votre aimable attention.